jëf ya saar amoon na ca mbooloom ñi gëm mi nekk dëkku antiyos ay yonent ak ay jàngalekat maanaam barnabaas simeyon ku ñu dàkkantele niger lusiyus mi dëkk siren manayen mi yarandoo ak erod boroom diiwaan ba ak sowol am bés nag bi ñuy jaamu boroom bi ak di woor xel mu sell mi ne beral leen ma barnabaas ak sowool ngir liggéey bi ma leen wooye bi ñu ko déggee ñu daldi woor ak a ñaan teg leen ay loxo ba noppi bàyyi leen ñu dem noonu xel mu sell mi yónni leen ñu dem nag ci dëkku selusi dugg fa gaal jëm ci duñ bu ñuy wax sipar bi ñu teeree ca dëkku salamin nag ñu yégle fa kàddu yàlla ca jàngub yawut ya ku tudd yowaana ànd ak ñoom di leen jàppale ci liggéey bi noonu ñu jaar ci dun bépp ba àgg euh, dëkku pafos foofa ñu gis luxuskat bu tudd baar yeesu di yawut bu mbubboo turu yonent mu bokk ci gàngooru boroom réew ma tudd sersiyus polus di nit ku neex xel moom nag mu woolu barnabaas ak sowool ngir bëgg a dégg kàddug yàlla waaye elimaas boroom xam-xam bu ñuul bi ndaxte loolu la turam di tekki di leen dogale ngir bañ boroom réew ma gëm ci kaw loolu soowool mi tudd it pool daldi fees ak xel mu selli mi mu xool ko jàkk ne ko yow mi fees ak fenn ak lu bon di doomu ibliis tey noonu lépp lu jub ndax doo bàyyee dëngal yoon yu jub yu borom bi léegi loxo borom bi dina dal sa kaw te dinga gumba ba dootuloo gis jant bi ab diir ca saasa nag ay bëtam muuru mu daldi tàbbi cig lëndëm muy làmbatu di wut ku ko wommat ba boroom réew ma gisee li xew nag mu daldi gëm di yéemu ci yoonu boroom bi naka noonu pool ak ñi mu àndal jóge pafos jaar ci géej jëm dëkku pers ci réewu pamfili yowaana nag tàggoo ak ñoom dellu Yerusalem waaye ñoom ñu jóge Pers aw ca yoon wa ba ñëw dëkku Antiyos ci diiwaanu Pisidi bésu nooflaay ba nag ñu dugg ca jàngu ba toog bi ñu jàngee yoonu Musaa ak yonent ya njiitu jàngu ba yónnee ca ñoom ne leen mbokk yi bu ngeen amee lu ngeen di dénk mbooloo mi wax leen ko noonu Pool jóg tàllal loxoom ne leen yéen mbokki israyel ak yéen ñi ragal yàlla déglu leen yàllaay bànni israyel tànn na sunuy maam di yokku xeet wa ba ñuy ganayaan ci misra ba noppi mu génn leen fa ak kàttanu loxoom dirum ñeen fukki at mu di leen muñal ca màndiŋ ma ginnaaw loolu faagal na juróom ñaari xeet ci réewu kanaan ba sunuy maam doon réew ma loolu lépp xew na ci diirub ñeenti téeméeri at ak juróom fukk ginnaaw loolu mu jox leen ay àttekat ba ci yonent yàlla samwil booba ñuy ñaan buur te yàlla jox leen sawool doomu kis ci giiru benyamin muy seen buur diirub ñeent fukki at ginnaaw ga mu jële ko fa dellu falal leen buur bu tudd daawuda mu seede ko nii gis naa daawuda doomu yeese ku ma neex ci sama xol te dinaa def lépp luy sama coobare noonu ci askanam yàlla indil na bànni israyel musalkat bi yeesu ci ni mu ko digee woon laata muy ñëw nag yaxya daana waare ne bànni israyel gépp ñu tuub seeni bàkkaar te mu soob leen ci ndox te ba yaxyay jeexal sa sasam mu ne ku ngeen may teg duma ki war a ñëw waaye am na kuy ñëw sama gannaaw koo xam ni kii yeewuma tekki ay dàllam mbokk yi yéen askanu ibraahima ak yéen ñi ragal yàlla kàddu mucc gi ci nun la wàcc waaye Yerusalem ak seeni kilifa xàmmewuñu woon yéesu te xamuñu woon waxu yonent yi ñuy jàng bésu noflaay bu nekk teewul ñu amal waxu yonent yi ci li ñu àtte Yeesu ba daan ko yoon dabu ko fenn moo na ñaan nañu pilaat mu reylu ko noonu ñu def lépp lu yonent yi bindoon ci mbiram ba noppi ñu wàcce ko ca bant ba tàbbal ko ci bàmmeel waaye yàlla dekkal na ko te diirub eh, ay fan yu bari feeñu na ñi àndoon ak moom jóge diiwaanu galile dem yerusalem léegi nag ñooy ay seedeem ci wetu xeet wi te ñu ngi leen di xamal xabaar bu baax ne leen li yàlla digoon sunuy maam def na ko ngir nun seeni sët ci li mu dekkal yeesu moom lañu bindoon ci ñaareelu saaru saboor ne yaa di sama doom maa di sa baay tey te li ko yàlla dekkal ba mu bañatee jaar ci dee te suuf du ko lekk mukk moom la yàlla wax ne dinaa la may barke yu sell te wóor yi ma digoon daawuda moo tax mu waxaat feneen ne doo bàyyi sa waaju sell mu yàqu ndaxte bi daawuda defee coobareg yàlla ci jamonoom mu faatu ñu suul ko mu fekki ay maamam suuf lekk ko waaye ki yàlla dekkal yaramam seeyul kon nag mbokk yi na ngeen xam ni ci moom yeesu nu ngi leen di yégal mbalug bakkaar yi te fépp fu yoonu musaa tële woon a àtte nit ni ku jub fa la di àtte ni ku jub képp ku ko gëm wattu leen nag bali yonent yi bindoon bañ leen a dal ci li ñu ne yéen ñiy xeebaate gis leen lii ngeen yéemu ba far ndaxte dinaa def ci seen jamono jëf joo xam ne su ngeen ko déggee sax du ngeen ko gëm ba ñuy génn nag ca jàngu ba yawut yi ñaan leen ñu baamte wax ja ca bésu noflaay ba ca tegu te bi mbooloo ma tasee ay yawut yu bari ak ñu tuuboon ci yoonu yawut te ragal yàlla topp ci pool ak barnabaas ñuy diisoo ak ñoom di leen xiir ñu wàkkirlu ci yiwu yàlla noonu bésu noflaay ba ca tegu daanaka waa dëkk bépp daje ngir déglu kàddu yàlla waaye bi yawut yi gisee mbooloo ma ñu daldi fees ak kiñaan di wedd li pool di wax te di ko xas bi loolu amee pool ak barnabaas ne leen ci lu biir yéen lañu war a jëkk a yëgal kàddu yàlla waaye ginnaaw gàntu ngeen ko ba àtte seen bopp ne yeyewu leen dund gudul jeex gi kon ñu ngi woññeeku ci ñi dul yawut ndaxte moom lañu borom bi sant ci li mu naan samp naa la nga nekk leeru ñi dul yawut ngir nga yóbbu mucc gi mu daj cati àddina ñi dul yawut nag bi ñu déggee loolu daldi bég tey màggal kàddu borom bi te ñépp ñi jagoo dund gudul jeex daldi gëm noonu kàddu borom bi di law ci diwaan bépp waaye yawut yi xiir ay jigéen ñu woomle te farlu ci diine ñoom ak magi dëkk ba ñu fitnaal pool ak barnabaas ngir génn leen réew ma waaye pool ak barnabaas daldi yëlëb seen pëndu tànk ngir dëggal seeni weddi jëm dëkku ikoniyom naka taalibe ya nag ñu fees ak mbég ak xel mu sell mi